Wow, assalamualaikum sama guys, sama followers Assalamualaikum wa jaspara bayar nabi madak. di nuyu nyep di lendi di di sàkk nyan di bal ak nyep di di lendi di ak. di nyan senegal jàmm adu nabi ak eh, jaspara bi parko. tey nag ma ñëw ci benn compilation laay ñëw tey chronique gu bi dañ koy def benn compilation La nag ma bayi len éclairage bi nga mom la len ministre maître Moussa Bokar Diam indil tay ci di len di expliquer lan moy diffamation ak kagn lañ wara indi preuve ak lan moy preuve waaw deglu len bu baax deglu len mu ngi ni ñëw na. Même les renvois dont on parle là, les renvois là, est-ce que vous savez que les renvois ne peut pas dépasser deux mois C'est là, là qui le dit. tu peux vous donner citer l'article. L'article qui dit que carrément que l'article 629 le tribunal correctionnel est tenu de statuer au fond dans le délai maximum de deux mois à compter de la date de la, date de la première audience. Diffamation, quelqu'un doit renvoyer, signer, ay mois, c'est la loi qui l'interdit. Bon, tout le monde est yak deram la loi faut organiser l'ordre, justement pour que tout boobu ngay wax pour que yak der bi ngay def mu bañ nek un yak yak der wala continuel continue bo xamantene amul app motax même une ñu la bokk poursuivre nit un dañ ko jox dix jours mu pour mu andi ay deux l'affaire sera jugée dans les deux mois mënu ko guen guen deux mois à compter de la première audience donc na fi ay way ay parax parax la justice dañ ko instrumentaliser parce qu'il y a un agenda électoral qui est devant nous parce que les Sénégal lepp lo def rek lepp justice def lepp lo def ci tey ci réew mi dañ toujours y a un agenda électoral qui est devant nous c'est normal c'est normal Wow, bu ñu paree foofu ñu indil leen euh, soxna si di euh, Mariam Thiam mu ngi leen di wax lu leer nañ waaye déglu leen soxna si lim leen di wax su ngeen paree après ngeen ñëwaat ñu continuer compil bi li ñu gis mooy dañoo wane ab nit boo xam ne dañu ne kii la état yónni mu yor ab liquide sotti ko seen waajooju di Ousmane Sonko ba ñu wane ay yaram yéreem yu tase loolu la ñu wane ñu walbatiku ñoom waat ci seen biir toujours ñooy wax di weddi seen bopp wane waat nit ki wane kanamam joxe identité joxe léppam ne kii ci ñi nga xam ne ñu ngi ci entourage Ousmane Sonko la bokk. may laajte liquide boobu bu dee ku mu àndal wóolu ko ba mu jege ko nu ni toll moo ko ko sotti waa laa faute à laa foot aki ñoom ñoo tuumal ñoo tontu seen bopp beneen mbir dafa am waa ji dafa ne ma nga ca hôpital tëdd. Nous aggravons sa situation gannaaw ba ñu sax ci groupe whatsapp ay message de ñu naan il va bien état de santé mais sénégalais comme manipulation il est dans un état critique et dafa laaj évacuation ndax boo lëmbee réew mi salfaañe droit ñëpp ba ba mbir mi këpp sa kaw bëggoo lu dul génn Sénégal xaw ma nag lu mu ci jublu gis naa léegi waa ko euh, yi di def euh, conférence de presse di laajte son passeport loolu yëpp daf ñuy delloo ci ay déclaration yu mu daan wax sama basa ngi nii fu ma bëgg a neex génn ñëwaat ne man maay maire bi ñu teree génn waa ji day wax doo xam fan nga koy natt ndax lu mu wax balaa midi mu di boppam xale yi nee nañ waxam du am anniversaire am na solo loolu ñu souligner ko Ousmane Sonko tay fi Sénégal toll yalla mo koy fay yene bi mu am ci Sénégal ndax nga nek doomu réew mi ñu former la jangal la la école ba nga yegg tay fi nga yegg mu à un niveau bo xam ne sénégalais bu nek yaangi ñaan sa yalla euh, sa doom jaar ci école bob. Amo loy fayé Sénégal ludul lufi lu fi lufi lu fiy lay nga salfaañe ko lu fi charte nga bañ ko respecté ku fi institution nga xoti war ma jëmele ko ci kawam di manipuler indi nono ci bir sénégalais jige kilifa diine ñoo wax kilifa aada yi noppi nañ xale bu nekk sañ naa taxaw ne sama yaay li nga wax noonu duma ko def li Ousmane ko wax laay def kooku tey bu ko yàlla fayee yéenam ci Sénégal munul am lu baax moo ko jural li nga xamante ne tey moo ko tëral hôpital ma koy ñaanal nag mu jóg parce que man il est pas mon ennemi c'est mon adversaire il est pas mon ennemi su ma sañoon mu jóg waaye nag dañ koy wax rek ne ay du yem ci bopp borom. dafa am suñu benn Ali bu ci wax démb muy suñu frère Mamadou Lamine Massaly euh, am déclaration bu mu def.

au détriment des jeunes du parti au détriment d'honnêtes citoyens Nous jox ko ay nit ñoo lu neex jël doole de qui de <laughs> de Cheikh Sek la quoi borom livre bi waaw qui Cheikh Yerim Seck pourtant dañuy dégg tout le temps nak bi di am nga ku nekk sañ wax de mu ngi wax juriste la juriste nak amna droit dossier. waye deglu len ko fi limi wax ci euh Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang waaw ma bëgg ngeen deglu Cheikh Yérim Seck. mais ya xeyti mu lan li jarul wax xam nga lan mo fi ne ñaara fi ne Mame Mbaye Niang la Ousmane Sonko taxaw ci télé bi nako dañ la épingle ci rapport. Mhm. IGE n'est-ce pas. Mhm. na ko ñun yépp affaire yépp mi ngi ñor tok ci. Mhm. lool ñepp dégg nañ ko wala ko. si Mame Mbaye Niang dem porter plainte ci juge bi. ñu woo Ousmane Sonko te mi li mu yor mi ngi yor toog ci li mu toog na ko ji na jóg téye ko yóbbu ko ci juge bi mu jeex amul je veux dire xam nga aussi dis xam nga xam nga sénégalais aussi faut pas se laisser distraire parce que des fois aussi politiciens dañuy distraire nit ñi faut pas se laisser distraire problème bi du problème politique c'est un problème judiciaire de droit yow yaa ni kii def nañ ko lii kii porté na la plainte juge bi nee la indil firnde bi nga xam ni moo tax nga wax ko lii indil firnde bi boo amee firnde bi juge menel demal sa yoon amoo firnde bi juge bi teg la ay daan jeexul mais soo waaw est-ce que lii jaratina dem tribunal du moment que Ousmane Sonko àtte na boppam moom àtte na boppam Ousmane Sonko wax na ak yéen nag tey yéen goney Pastef fi yéen magu Pastef yi parce que goney Pastef yi sax commencé nañoo comprendre mais pas yu bejjaaw yi naafeq yi fenkat yi maire yu mel ni comme kooku di waaji ñoo nga xam ne léegi ma indil leen ko muy borom baatu góor bi xanaa nag bu Ousmane ko waxee léegi ngeen mën a ranger seen hache de guerre ak seen i fenal diine gi ñu gëm sax da koo sit mhm. da ko da koo dàq diine ci boppam nee na kii accusé mooy andi ay preuve am te preuve bi day jiite accusation bi mhm. doo accusé nit ba pare dem wuri preuve mhm. waa léegi xoolal leen ma tout ça est-ce que lii jaroon na ñuy de ñuy sacrifier suñuy doom est que lii jaroon na ñuy taal ay Auchan est-ce que lii jaroon na ñu paralyser dëkk bi une semaine oh non Sénégal caaxaan nañ fi bëgg a bëri xool leen lii lii dafa ñaaw lool lool lool lool dafa ñaaw trop weesu na ñaaw lii est-ce que jaroon na ñu taal dëkk bi wala ñu koy jéem a taal est-ce que jaroon na ay nit di fi gaañu wala di fi blessé ba deux morts ñu ngi leen di jaale di jaale seeni mbokk est-ce que jaroon na ñu yàq dakaar dem dikk ay buisam ya nga xam ne ñun ñoo ciy yéeg. parce que no problème di am ci dëkk bi vraiment li ñaaw no quoi ay katch kese ay fen rek ay fen rek <laughs> no no no no <laughs> wa mère bi de la leen doon wax <laughs> borom baatu góor bi waaw période bi de ndeysaan mu ngi doon la ko Ousmane doon ñaan jakarlo ñom ñaar ci législative ya li la ko tontu won nak deglu leen lim ko tontu jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na du li mu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ayta leen ñu dee ñëw ñëw leen yéen ngeen dee bu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee moy woo nit ñi wala genn leen doon ñeenti téeméer xama ñaari téeméeri junne yi nit dañuy dox jëm fi jëm fële manam bëgg indi tasaru réew mi nak mom war na xamné mënu ko taal tay mënu ko taal guddii mënu ko taal bëcëk sénégal mo mak ousmane sonko sénégal ousmane sonko dana politique ba jéxal bayiko fi lolu mom aussi dafa dañu bëgg mu leer nañ ci bopam momit ni comprendre loolu ndax ñoom lay toujours jeunesse bi muy woo nag bu ngeen xoolee seen liste yi ñoom newuñ ci de defuñu ay ay jeunes ci seen liste gis nañ sax gedd waaye bu ne lu mu atelier voilà euh, seen salon de coiffure leen c'est inacceptable c'est inacceptable parce que nak ku Sénégal ñor la lay njëkk ñor moy stabilité ak jàmm surtout bu xamé Sénégal environnement bi mu nekk jàmm jooju likoy indi moy démocratie bi ñu topp waye nak ne ci talibé yi menacé té li muy wax nak mu xamné titalul tiitalul kenn kooku moom loolu moom bu ko xamone dana ci noppalu amul kenn ku mu mën a wala ku mu mën a amul parce que nak fi aussi c'est un pays de droit waaw kii nag moo dem parcelle taxaw di wax ci Ousmane Sonko ndeysaan nga xam ne keroog biy wax sax du xool ci kaw day wax di sëgg ci suuf buy wax mel ni ko gymnastique buy wax mel ni du kenn du comprendre ba mu paree taal ne fes dem yoonam Adja Mimi Touré xanaa budul dara nekk nga fi premier ministre du Sénégal ka nekkoon président de changé gul mu ngi tuddoon président Macky Sall nga nekk fii ministre de la justice Adja Mimi Touré pourtant président Macky Sall fina fi nekkoon de nga nekk fi conseil économique et social pourtant président Macky Sall moo fi nekkoon nga def fi campagne def fi lépp tey jii ne yow ya mën sa vers, dem bu buntu suma assistance di wax li ngay wax <laughs> Mimi est-ce que la ngay ne say dom yu go, say dom yu jigen am nañ problème ndax kenn dotu len ñoo ñaan ci. ndax dañuy xam li ñuy wax dom ja ndey ja képp ku fi juum ba takk doomu Mimi Touré nii la lay waree waa kii sama copain la <laughs> kii mooy Barthélémy Guéri Bart dem na tribinal affaire bi ñàng ndeysaan mu créé ay nervi këram quoi jël téléphone taf ci nopp bi jékki-jékki rek génn ñàngi ñàngulu ndeysaan te buntu këram maire ba doon jaay gerte sax xëy <laughs> <laughs> meer ba doon jaay gerte bu gërëm sa xëy siwul ndeysaan mu ne ay nervi ñoo ñëw gërëm ñàng ñàng lu génn dellusiwaat ay Bart bàyyil caaxaan bàyyil Ousmane mii ngay tax Bart nee nga religion bude religion catholique bible lañ wax bu religion musulmane coran lañ wax mais bu Sénégal la constitution lañ wax Bart ya né won yow ya wax de wax lo la Bart xana bii né nag doone ba nga waxé né Sonko aji sar ak ki nga ne dañoo dañoo dañoo troquer sa voix wa bii paa ni ko wax na li vidéo la Bart ya ko wax de gor ca wax ja waay Bart ma président Macky Sall amna droit présenté au 2024 ya ko wax ya ak sa xalif général Ousmane Sonko waaw donc nangul rek Bart bay tiaxan way Bart bayel kaf. tay so nekkee jullit amo droit di jiital sa xalaatu bop alcorane ngay tek so nekkee catholique sa xalaatu bopp nga dóor ko sa armoire bible ngay tek ñun suñu alcorane ak suñu bible ak suñu toxa euh, Torah mooy constitution du Sénégal. constitution du Sénégal nee na képp ku falu Sénégal am nga sañ-sañ def ñaari mandat wu juróomi at. non deux mandats successifs. de de cinq ans de cinq ans mais deux mandats successifs. non ma ñëw dañu ne su ñu waxoon deux kenn amul droit def lu deux mandats successifs yemale ko le que Macky Sall le droit def troisième mandat. mais mais yow da nga jàpp ne interpréter l'article 27 de la constitution Macky Sall bàyyi no porox ndol bu ko mun may mu def troisième mandat C'est ça la vérité. lu la mën wax may mun a mooy su troisième mandat man Barthélémy Diaz ma marche. Do bouger duma ma bouger. te duma tal rew réew te ma ñew nak képp ku génn ci mbedd bi da nga yeb constitution du Sénégal fa la yam ci wax ci <laughs> xolal ma Abbas copain Akhenaton quoi xolal len ma fi Abbas le copain de Akhenaton Abbas Fall le mandalok <laughs> le lok fet nga ba nek député waaw Abbas xala rek nga wara goré nak xana dambo ci yow le ferolog dam le le sprinter dam bul daw dam waxu dam waxul dam gëna a waaxu jékki-jékki rek dajeeku <laughs> wa dam legi, lu dess nak léegi xana bu ngeen di fenal nit nak ba mu génnee passeportam ne sama passeport ngi ni am naa ko ban passeport ngeen di bëgg Ousmane Sonko am pour tukki yeen kay xaar len Ousmane Sonko bu ak jamm ba génn fofu mu nekk non fiñ ko fi mu téyé bopam kën téyé ko fa mo fa téyé bopam waa xaar ko bu génné xeyna na dafa am lu fay réglé bu génné dina dem aéroport génné na len passeport bu xonko cuy néna na passeport diplomatique la soxlawul visa ah xëy na passeport diplomatique de xeyna na ci biir CEDEAO soxlawul visa waye Allemagne bi ma nek de bala nga fiy dugg di nga indi ordre de mission té yenen dëkk yi di nga am visa pour dugg fa légui Ousmane bu wéré dina dem aéroport jël avion dem yonam faju ji bàyyi len ko heure bu ko santi rek na dem mais ngeen naan nañ ko jox passeport am dafa war a tukki dafa war a faju ci moom nee na am na xanaa yéen nag yéen yéen a dëgër bopp xool leen li Ousmane Sonko wax fii la leer. dañuy exiger à ce que le président Ousmane Sonko ñu jox ko passeport mu dem bitim réew. man sama passeport maa ngi ko yor ngi nii. ah bon kon ñoom ban lañ euh, euh, la la problème sama passeport mi ngi nii diplomatique soxla mo visa. waaw ah. saa yu ma bëggee tukki naa tukki. nañ ko delloo passeport évacué ko mu dem faju man sama passeport maa ko yor sama passeport mi ngi nii. ah bon ban euh, euh, la la problème sama passeport mi ni. diplomatique soxla mo visa. ah saa yu ma bëggee tukki naa nous exigeons dans ce registre alors que son passeport lui soit tout de suite restitué pour permettre de procéder sans délai aux formalités permettant de le, de le sortir du territoire pour euh, prendre en charge de façon correcte ces soucis de santé. man ça passeport passe pour ko yor sama passeport mi ngi nii. Ah kon ñoom ban lañ yor. Euh, la la problème Sans passeport mi ngi nii diplomatique soxla mo visa. waaw ah. saa yu ma bëggee n'a naa tukki. Ousmane doit aujourd'hui être évacué qui doit aller se soigner. Je crois qu'ils ont la responsabilité de laisser Ousmane aller se soigner. Man, sama passeport maa ngi ko yor sama passeport mi ngi nii. ah bon kon euh, euh, la la problème Ça passeport passe ngi nii diplomatique soxla mo visa. Ah. Ça, saa me ma tout tukki n'a tukki. yow mi? non bijou <laughs> non bijou Bail caaxaan bijou bijou bail caaxaan yo. yow. kilima kilima Senegal ak kilima France ban différence la ba sama papa sama mam. la xaw ma lan la dudd man ni ma xamoon di mag yu bejjaaw yu weex tal dëgg rek la wax fu mu leen la lañ koy pourtant ya ngi avertir Ousmane ne ko ni ñibbi ci biir oto bi mu naan la noonu nañ toj oto bi yow boobu nga waroon wàcc may may pa am fulla ak fayda wàcc te xam ne yenn du yëfu mag du je kilifa jë taxi dem ñibbi sa kër wala nga dem jiitu yu ko fële tribunal moom mu def yëfu dofam ah yaa ngi nii actuellement <laughs> ñu lay filmer ci ay café ki ay kenn xamul ngay naan kafe yow papa ki la door maam ki la door doo xam ne sa doom nag kilifa la ci police sa doom kilifa la ci force de défense sécurité ñi muy war a xool réseaux sociaux yi ñi muy commandé di ko xoolee loolu waaye waaye waaye père père ba euh, non bijou baal leen ko quoi seet leen ci doom ji baal leen ko baal leen di pousse ñuy pousse di dàq di dàq dàq dàq comme ni nga ko waxee. ba avocat bi feebar moom am am. mais loolu am na début d' explication. Hmm. avocat bi woon dafa feebar ñu teg ko fii ci pousse pousse. waaw bi mu France nu mu def. climat bi du benn. <laughs> bi mu France nu mu def. waaw non bëggul toog ci pousse pousse sëñ bi yow kay <laughs> yow kay xam nga li xew. non gis naa image avocat bi moom daf ni dafa feebar. waaw ni ni ni mi ngi bëgg a dee. Hmm. ñu jël ko dugal ko ci pousse pousse aéroport Dakar. Hmm. mu dem France dox ñu gis ko ci ben restaurant. yaa xayti mulaan boo mënee toog ci restaurant no lekk kay mën xam nga ñun euh, du ñu attardé wu sax ci euh, avocat am bi toog ci pour pour dem France am ne climat yi tamit mën na ko bañ rek. parce que foofu pex mi. waaw mi pex mi mën na changé la gazé aussi sedd bi nag tamit ak pousse pousse tamit ñu bari peut eh, am euh, la gazé poussière bi nga dem fële nga xam ne amul poussière ba pare féex. ay yaa ngi ñëw confrontation nag. boo nooyee boo nooyee am kaf xam boo nayee air bu neex ba après da ngay mën a dox Ousmane Sonko daal ak avocat Ousmane Sonko ak avocat ah yow yow émission bi mi ngi rax kat de yal na leen yàlla may jàmm yal na leen may ñu wér wér bu gaaw su ko defee le 30 juin le 30 du le 30 la. waaw ñu jugé affaire parce que sénégalais ñoo sonn ci affaire. le 30 mais mais mais monsieur. Euh, ñu jugé mu jeex ñu dem ci waaw kaw Dame Mbodj laay ñëw parce que. ji nit nekk ci télé yi nekk ci rajo yi nekk ci live yi.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 parce que lolu moy walu gor bu ko deful du gor bu ko deful fenkat la bu andiwul rapport du nit ku bax bu andiwul rapport soskat la. wa xana ki du Ousmane Sonko Ousmane Sonko yo ya fi wax ngane nit buy wax na wax lu ko leer mom mo wara outil uti preuve mo wara indi ay preuve wa lolu de wax nga deug vraiment tu as raison fi mom fi mom bolé nako ci période yi ngay wax deug wa fi bolé nako ci période yi ngay wax deug mais après Ousmane waa ana preuve yi preuve yi mooy gatsa gatsa preuve yi mooy génn leen ci mbedd mi preuve mooy ñu sotti la vinaigre nga ne dañ laa posone preuve yi mooy dem suma assistance ñu ne la sa bon de sortie ñu ni nga ne génnuma li may génnee fii mooy direction aéroport preuve yi mooy damay dem France bi nga xamoon ne da nga ne France moom mooy loolu dégage waaye Ousmane bàyyi caaxaan waaye indil ñu preuve yi waaye ñu preuve yi indil ñu preuve ñun doyal nañ sa wax ji quoi Windows rek la nekkee Ndakaaru Ndiaye Windows rek xool leen xool leen oto mbali ci biir koñu nit ñi la taxaw ci biir koñu nit ñi la taxaw xam nga ni lii xoolal xoolal lii kañ la fiy jóge xoolal lii la doon tiitaroo lii la doon tiitaroo lii lii la doon tiitaroo Ziguinchor ba Maal Falapore toj nañ oto bi kañ la fi ci àddina bi kañ la fi jóge ci àddina Sonko Zig va Maal Sonko Zig va Maal Sonko waa Zig nee nañ sonn gis nga te ñaari oto la fi dugaloo. waaw mon ami mon ami Diatta waa xanaa Ziguinchor amul vulcanisateur eh <laughs> mon ami Diédhiou sa mbokk séeréer bi moo lay laaj laajte xanaa Ziguinchor amul vulcanisateur mi yéen seen oto bii nii hein xaaral ma envoyé leen séeréer yi xam nga Dakar moom vulcanisateur yëpp ay séeréer lañ xaaral dinaa ci ut kenn ku ma yónni mu defaral leen seen pneu oto yi ah lii du burok oto burok laay seet nii de waaw vraiment Ziguinchor va mal yéen a ngi souffrir ah, en ne newoon naa leen fi buñ defaatoon élection locale Pawlish mbay xëccoo ak Ousmane Sonko Ziguinchor Pawlish la ñuy voteel waxoon naa leen ko de samay wax Diallo Mousla lu leer naa leen. boo gisee le juge Maham Diallo xam naa ne xaw ko mais ku fort la. parce que le fait que ci ci ci ci ci arrêt de renvoi mu dem ba qualifier. mu mentionné mu mentionné ci le caractère psychopathique. de Ousmane Sonko. te xam ne ko ku xam nit la. c'est effectivement vrai ñi ko ànd ak moom bu ñu ko bëggee moom moo am bu ñu ko bëggul moom gis nga ku mel noonu.

parce que parce que nit aussi xam nañ psychopathie boobu ci discours yi mu def fële ak ni mu waxee nga xamné presque il a bouleversé tout <laughs> <laughs> non Ousmane nag war nga soppeeku quoi parce que juge yi sax juge nga xam ne dañuy àtte di tëjaate wala àtte di baale wala àtte di la di la di la wala di la acquitter buñ demee ba gis na yow mi tu es un psychopathe vraiment nga war a soppeeku quoi est-ce que booy xam nañ lan mooy psychopathe est-ce que école yi de waruñ fa jàngale deux semaines ñu wax lan mooy psychopathe pour booy yi xam kan nañu amal affaire noo Ousmane tu es dangereux très dangereux.

parce que yee fitna nit a ngi yee fitna goo xam ne ci boppam lay mujj te dina ko jural loo xam ne dina ci bëgg a génn mu të ko ñun réewu dialogue lañu nañu essayer trouver des solutions ci suñuy problème waaye ci biir loolu dama jàpp ni benn suñuy ñi yor suñu kaaraange doole ak kaaraange gi nga xam ne askan gee leen ko dénk parce que askan gee bëgg ko ko saytu koy saytul kaaraangeem mu tan len ci di len jox sen payoor jox len sañ-sañ li tubab naan le monopole de la violence légitime parce que ñom rek ñoo am sañ-sañu ñew dal ci nit te kooku du fayu parce que dañu am légitimité pour def ko population bi rawatina ndaw ñi nañuy moytu di exercer une violence bu jëm ci force de défense et de sécurité parce que ko xamne jumtu ma yu mu yor yoroo yoroo te sa kaaraange la fi nekké am na yenn jàmmarloo yoo xam ne jaru ko ñun askan wi nañu moyetu di dem di songu ay édifices publics yoo xam ne bâtiment wu police la wala bâtiment wu gendarmerie la parce que boo ko defee bu dee li tubaab di wax massacre amul rek dafa fekk ñooñu dañoo téye seen bopp te bâtiment boobu suñu bâtiment la suñu impôt moo ko tabax ñooñu locataire nañ fa rek waaye bâtiment boobu suñu impo moo ko tabax kon nañuy moytu suñu meree lakk bus wala ñu dem toj bâtiment ñun jeunesse bi bu ñu trompé de combat kon nañu poser wu question toujours ñun ban jeunesse la ñu war a doon ensuite ñu xool lan moo jar a xeex ñu xeex ko lan mooy combat bi jar dëgg dëgg dëgg xeex ñu xeex ko waaye topp nañu acteur politique yi ba dañ ñoo nax kon nañuy xoolaat suñu bopp réew mi ñun waaw nag sama gars yi gannaaw ba ma leen defalee <laughs> compilation bi xam naa di ngeen réew yi bëgga dee mën ngeen cee dàq koor gi waaw comme nag ñu ngi jëm ci weeri koor vraiment nga xamante ne eh, semaine bii ñu nekk nii incha allahu rabbi bu yàlla defee jàmm dinañ commencé koor gi eh, ñuy baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan jàmm ci àdduna bi di ñaan jàmm ci diaspora bi Bayern ne bii ma dëkk Allemagne ak euh, Landshut bi nga xamante ne fii laa yeewoo euh, di ñaanal ñëpp nag jàmm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp vraiment jàmm ak salaam di ñaan yàlla def ci suñuy poche dara euh, vraiment ba ñu mun a oor ci jàmm ak salaam ba vraiment bu ñu ooree ba pare xanaa nag dina jikko yi dinañ soppeeku. ñu ñaanal Sénégal jamm jëmele Sénégal jamm bàyyi caaxaan bi bàyyi fo bi di ñëw nak ci lool rek di ci profito di wax ne ku nekk na nga xam sa place que ça soit chroniqueur nga que ça soit liveur nga surtout nak liveur yi lay waxal cette fois ci nañu xam sen place nañu xam sen place parce que bu la 4000 personnes di seetaan 3500 personnes di la saga nga wara xam sa place wara xam li ngay wax lan la nit ki nak mënoo nekk di curux curux fu nekk nga curux curuxee fa tey jii nga mel ni janax suba nga ne jox Ousmane Sonko bopp ginnaaw suba nga tourné jox Pape jibril Fall bopp ginnaawaati suba Mame Mbaye Niang ginnaawaataati suba kële ginnaawaataati suba kële euh, euh, comment il s'appelle euh, le premier ministre Amadou Ba il a été toujours loyal au président de la République Macky bien qu'il était le chef de Ousmane Sonko je ne pense pas que Youssou Ndour war na ñàkk à ce point ba muy live TV dinaa indi satellite dina am télévision ëpp xaalis fuuf Ousmane Amadouba. Amadou Ndour est très riche mashallah. il est plus riche que touche du bois il est plus riche que Amadou donc nag kuy wax ci Youssou Ndour vraiment je suis très contre Bouba Ndour ànduma moom ci benn lignée benn lignée je suis très contre parce que Bouba Ndour façon bi muy doxee léegi du kenn lu kenn xam parce que booy def da ngay da ngay yemale jël côté bi jël côté bi bañ a nekk rek di def affaire Walfadjri yooyu noonu. mais gëw ma ne man Amadou Ba war na mën a ñëw di jënd Youssou Ndour loolu si insulter Youssou Ndour beneen bi mooy wal Walfadjri depuis que Walfadjri naissance amam ba tey Walfadjri n'a jamais changé de ligne de conduite même bi fi Sidi Lamine Niass nekkee nii la mësa mel Walf musul ànd ak nguur boo ko commencé depuis Walfadjri commencé li mu daan dalee ci kaw ab Ablaye Wade noonu lay dalee ci kaw Macky Sall wasalaam ku nekk nag na nga xam sa bopp xam fi nga mën a yem affaire gouvernement le gouvernement mais chopati bi ci ci soyez plus intelligent que ça té avertir les ministres les directeurs yi nga ñu ngi jël téléphone audio pour que ñu xeexee ko kële suba fàttale bu leen fàtte na suba seeni audio yooyu mën na nekk ci mbedd mi seeni vidéo yooyu mën na nekk mbedd mi faites très attention faites très attention surtout aux activistes et aux liveurs macha allah jërëjëf